ngeen jot suñu ne dugal muy tukki économique ci Sénégal ñett ñooñee kenn kaa ngi tudd Mouhamadou Yoro Diallo keneen ki Abdou Mamadou Sy eh, ak keneen ki Ousmane mooy ñett ñi nga xam ni suñuy confrères yu faatu tey jii ci suba léegi ci accident muy lu metti lool. bu métti dal ci leeral TV ci seen benn oto toppoon ci cortège bu njiitu réew mi président Macky Sall tournée économique ba mu doon amal moom moo def accident ci sortie Kédougou ñetti nit ñoo ci ñàkk seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci xabaar yi seen chauffeur la seen benn cadreur ak benn journaliste am na keneen ku nekkoon ci oto ba moom jamono ci dafa ami gaañu gaañu ñu teewlu euh, Mouhamadou Cissé moom mooy coordonnateur bu leeral TV di dikkaat ci boobile accident ci euh, téléphone wu Alassane Samba Diop. léegi lañ ma trois ñoom ñoo parce que yi jotee quatre ñoom bi dem voilà ñu ne kenn rek moo ci dund quoi kenn ci maa ngi koy woo mais c'est ça ça ça sonne actuellement nii maa ngi à quelques mètres du comme ça ma xam ma xam exactement qu'en est-il quoi. ce sont des journalistes de leeral. waaw leeral la ñoom ñoom benn journaliste la ak euh, ñi ñoom ñoo décédé gu benn journaliste la benn cadreur ak chauffeur bi. parce qu'il y avait deux journalistes benn cadreur ak euh, ak le chauffeur. ils on dit benn journaliste bi si dund quoi. Mamadou Cissé di euh, coordonnateur bu euh, Leral TV ngeen ko doon teewlu ci Alassane Samba Diop muy dikkaat ci accident bu métti boobee dal ci Leral TV seen benn oto toppoon ci cortège bu njiitu réew mi tournée économique ba mu doon amal dafa accident nga ñetti nit ñoo ca ñàkk seen bakkan kenn am ci ay gaañu gaañu ci suñu kàddu kàddu euh, E-Media investi yëpp di jébbal seen njàll Leral TV.